salaamaaleykum mbokk yi euh, may wax rek à la suite de Amadou bi nga xam ni tey ci suba moo dal ci Sénégal muy naqar muy tiis muy metti metti boo xam ne dafa dal ci ñun ñëpp avant ñu nekk ay candidats à l'élection présidentielle ay Sénégalais lañu d'abord te li dal tey ci Sénégal ñun ñëpp. la naqar may wax ni réew mi dafa am ñu tuur seen deret dafa am ñu sacrifier seen seen àdduna dafa am ñu sacrifier seen famille sacrifier seen doom pour Sénégal nekk Sénégal depuis indépendance ba léegi jàpp ñu ne am na benn nit boo xam ne war nga dogalal waa Sénégal li nga xam ne moom la ñu jaaduwul président Macky Sall amul benn droit du constitution bu ko ko jox du loi bu ko ko jox du décret bu mu mën a signal boppam bu ko jox doole bi mu def li ñu def tey ñu jàpp ne dafa jalgat suñu constitution dafa jalgat yoon loolu nag waa Sénégal yépp la na may wax ne président Macky Sall Sénégal jox nañ ko lépp Sénégal defal nañ ko teraanga bu nekk le peuple sénégalais ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait aujourd'hui nous sommes un grand peuple on doit avoir des dirigeants dignes de ce mais pas des dirigeants yoo xam ne dañu jël le pays jël les Sénégalais en otage jaaduwul donc ñun ñun ñi ñëpp daje fi ak ñeneen ñoo xam ne dañu ñëw fekk suñu wala ñëw ànd ak ñun ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mën nous rejetons et li nga xam ne moom la def tey Amadou wax na ko campagne électorale bi minuit lay commencé tey bu subaa incha dinañu campagne bu subaa li nga xam ne loolu la ñu constitution bi jox loi jox ñu ko règlement jox ñu ko dinañ ci taxaw subaa ñu lancé suñu campagne incha allah donc di wax sénégalais yi ne leen lii xew tey du problème mu opposition du problème mu candidat mais problème mu waa Sénégal yëpp sànq damay wax ni mbéjum kanam boroo ma koy fayal boppam sénégalais yi dañu war a mobiliser muy fii ci Ndakaaru muy ci région yëpp ñu mobiliser wu pour récupérer suñu souveraineté parce que loolu moo jaadu le président Macky Sall ne peut pas prendre le peuple en otage du ñu ko nangu donc sénégalais yëpp bëgg naa ñu mobiliser wu ba li nga xam ne noonu la ñu tënkee suñu ay loxo ak suñu ay tànk bëgg ñu imposer loo xam ne c'est pas démocratique bu loi moo ko tëral bu constitution moo ko tëral ñu xeex ko te jëlee ko bu ñu jógul leneen a ngi ñëw te looloo gën a doy waar donc ma jàpp ne mobilisation bi ça doit être une mobilisation totale et général de l'ensemble du peuple sénégalais ba li ñu bëgg di ko xeex ci démocratie di ko xeex ci liberté di ko xeex ci suñu réew baax ci suñu réew tegu ci yoon réew mi nekk un pays de liberté un pays de démocratie mais surtout un pays d'état de droit parce que ñun loolu la ñu gëm parce que yeneen réew li koy def te ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu patriotisme ci suñu réew donc loolu combat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy mën incha allah donc may encore une fois ñu wax ni ñun en ce qui nous concerne bu subaa suñu campagne am na nag ay dispositions yoo xam ne bu soobee yàlla daañu ko jël mais ñuy appeler à tout le